mooy génnee ruuxu faat kenn nag ni mu mel turu yàlla rek lañ fa war a tudd waaye keneen koo fa tudd ku yàlla rek day dal di medd soo téyewoon paaka bi tey di rendi <clears throat> benn benn gàtt nga daal di ne ci barkeb sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daal di koy rendi soo yàggalee watal sànni medd na ndax foofu yàlla rek lañ fiy tudd bu mu waxee nii sama yoon du ci nekk yow yaa koy xam buur nekku loru loof na ko xayra baaxin kooka nekkul aji beew wala aadin duur aji jéggi dayoo koo xam ne nag dafa loru ba bu lekkut dafay dee kooka day mën naa lekk loola ndax moom loroo tax fala isma kon kon déet bàkkaar ali di war ko ci lekk liñ ne medd na inna laa yàlla moom xafurun aji bale la rahimun aji yéram la bàyyi na loolu ngi ñëw ci ahlul kitaab alul kitaab nan lañ gise gisee alquran alul kitaab nan lañ gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñu gisee alquran moo di ne lépp luñ jàngoon ci tawraat ak linjiil bi mu ñëwee tey dañ ko weddi kon àddina gënal na leen seen alaaxira ba jaay nañu alquran ji jëndee ko seen àddina mu jaral leen ñu di ko weddi lolé yit ñom ñi nga xamné ñoo doon fodé yahudi ak nasrani ak képp kuy def lolu yaa ko moom nga jël téré yalla bi di ci waxal nit ñi yi leen neex dëgg ya nga nëbb ko ngir liñ la cey jox sama borom ni koku safara rek ngay lekk ci sa biir te bu yowmal qiyamé da nga xam lolu sama borom tabaraka taala ne ko dal sa adina la gënal sa alakhirah dëgg-dëgg nak yaa ñeme safara lolu waxin la moo tax mu ne ina ladina naka ñi nga xam ne yëg tumuuna ñooy nëbb maa anzala la wàccee na ko laahu yàlla minal kitaabi ci téere waaye saroo na ñuy jëndee bii ci téere ba tamanan njëg xalilan gu tuuti te mooy àddina ulaayika ñooñu day maa yakuluuna lekkuñu fi butunihim seen biir ya ila naar lu may safara tax na ba yowmal qiyaam wala yukallimuhumullah du wax ak ñoom sax yowmal qiyaam yàlla du waxee ñoom keroog ndax ah ku yàlla di wax ak yow sax amaat na mu yërëm la waaye comme booy wax sax du wax ak yow <laughs> loolu moom xam nga day daal di nekk mbir mu métti rek wala yuzakkihim du nangu seen ak sellal wala hum ñeel na ku yàlla nanguwut sak sell du wax ak yow ñeel na ñoo ñu aadaabun mbugal alimun moo xam ne aji metti la mu lu ko waral ndax ulaayika ñooñu la dina ñi nga xam ne ishtaraw jëndee nañ ad dalalata ak réer bil huda akum njub wala aadaaba جند نن ام بوغل بالمغفره نجيغل فما اصبرهم على النار نيوكا نيمي سفرا ندا تعجب بوبو بول تعجب بوبو ييب سو بولي جمله جي لول لي تيكي تي معنى صحيح معنى ني ньо نيمي سفرا ذلك لول بان الله نك يالا نزل واتينا الكتاب التير بالحق تي دغ وين الذين نك نيغا خامني اختلافو ووت نان في الكتاب تي تيري بي la fii shiqaqin ñu nga nekk ci bu wutee baidin boo xam ne aji sori la mu dëgg bay na loolu léegi dafay tekki lan mooy xaqiqatul birri ndax birru moom mooy rek jublu penk di julli këpp këpp allah akbar asalaamaaleykum ndax ku yem ca loola rek mën nañu wax ne xeeti topp yàlla yépp def nga ko te fekk imaan bi amut te fekk gëmoo téere yi te fekk gëmoo malaaka yi te fekk rafetoo jikku doo doo jëflanteeg dëkkandoor yi lu baax doo dimbale miskin yi wala jirim ya te fekk doo te fekk itam gannaaw julli ga asaka doo ko joxe amuloo kóolëre ngay wor te te doo muñ ku ku ñàkk ak muñ nga ku ñaaw jikku nga ndax loolu dina nekk birru mën a déedéet fokk nga boole yépp pour doon ab birru moo tax buur ne lay seen birru de di nekk di ak topp yàlla antu walloo ngeen di jubale rek وجهكم سن كركنم يا قبل المشرق تبنك والمغرب يكسو جبلي تبنك رك دي جولي دون لو رك يتوب ولكن البر وايل في نك باقي من موي كو خمنه امن غمن بالله كي يال واليوم الاخر مو غم بس بنك والملائكه مو غم ملائكه والكتاب كيري يال واتي والنبيين يوننتي وآتا مجحيد المال على على حبه فك مانغكو بغلول mu jox ko ñen zawil qurba ña ko jege ci bokk mu njëkk leen a dimbale balaa moo dem feneen wal yataama ak jirim yi ñu ñàkk seen wayjur wu góor te fekk mataguñ mu kàllaf wal masaakin ak miskin ñu amul dara ba xeeti dara jeex wam ni sabil ak ku tumuranke koo xam ne donte dëkkam am na fa it fii moom daf fee tumuranke wa saayilina ak ñooy wër nag di yelwaa naka laaj ñooñu it mu jox leen wa fi yi ak ñi nga xam ne bu ñu amee jaam dañ koy gore ngir yàlla وقامت موي تخ دورا تخوال نك صلاه جولي واتا موي جخه الزكاه الزكاه والموفون ان ني متال بعادهم سين كولري اذا عهدوا بن فسنت كولري والصابرين ان ني موي في الباساء تترتريا والضراء لوريا وحين الباس ات وقت ومبير مي دورا قومي متدوا موي فا برم تبارك وتعالى فاني تعبير بالغ فين واخيني في الباساء والضرائي yi nga xam ne bu lor ñëwee walla ay tar-tar dana muñ dafa xam ne am na ci koo xam ne ca saasa du muñ waaye nag su wéyee mu muñ moo bari ci doomu aadama xotti say lex eh, xalangu wéqu ci suuf yuuxu ndax musiba ñaari fan nga fàtte ko lekk naa nelaw sangu ñu ne muñ nga mu ne déedéet muñuloo moo tax buur ne wa xiinal basi ak ca waxtu wa ay wa di xew foofu laa soxla sëg muñ ulaayika ñooñu la dina ñooy ñi nga xam ne sadaqoo ñoo dëggu ulaayika ñooñu mu ñoom almuttaquun ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy ragal borom bi tabaraka wa taala bay na lool mu ñëw ci li nga xam ne tey moom la julit ñi war a jëfandikoo su ko julit ñi jëfandikoo woon dal di am jàmm moo di ne fayu rek ku rey nit nañ buñ la reyee rek kenn du reyati kenn ku sàcc bu buñ daggee sa loxo rek kenn du sàccati ku yàq alali jaambur nga fay ko ñu duma la rek kenn du ko defati mu ne loolu mooy tax ngeen dund jàmm yéen a koy amee ci képp ku yàq jàmm ñu mbugal ko rek mu daal di ko bàyyi mu nekk ibra pour ñeneen ñi kenn dootu ko def moo tax buur ne xajaas yi ne li ko tax a sax moo doon benn xëccoo bu amoon ci diggante ñaari giir ci arab ya Eh, benn giir ba ne su ngeen reyee ci ñun gor daan rey ci yéen jàmm su ngeen reyee ci ñun jigéen daan rey ci yéen góor ndax ñun noo leen gënu xeet ñuy ñu jàppante jàppante ba metti lool ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko nag fayu rek ci yem moom la loolu lañu bëgg moo tax yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen gaa ñi gëm alquran kutiba فرتالف عليكم تيين القصاص فيو في القتلى تنين ري نيوب الحر غر بالحر دا نكو ري تي غر ولا عبد جامر بالعبد تي جام ولون سا جيجين بلون سا جيجين فمن عفيا كو جيغليف نا لو نيال كو من اخي تي مبكم شيء دار فاتباع ورنكو الطفل بمعروف تي لباخ وعداونا جوخي اليه باحسان تي نيك بو فكينا نيت dañu rey mbokkam wala jege ñaaleem mu jéggale mu waroon a mu waroon a dem ci yoon ñu fayu ca kooka rey ko mu taxaw ca géew ba ne jéggal nañ seen deretu mbokk ngir yàlla eh, mu ne sariyaane bu mu ca yem bu mu ko jéggal ba pare tongoo ko bu ko jéggalee na jàmm dox seen diggante <coughs> soo demoon tey ci fu mel ni Arabie Saoudite nga xam ne dañuy def qisaas te ci am ay jalsa yoo xam ne fekkee ko lu doy waar la dañuy teg nit ki nga xam ne dafa rey nit ki takk bët yi yeew ñaari loxo yi ci gannaaw génnee ko baabu salaam sotti fa beeñ bu bari mu sukk walbati ku jubloo ak kaaba gi mbooloo mi def ko ab géew elimaan ji ñëw <clears throat> ak ñi nga xam ne ñoom la tooñ seen bopp ngal di ne kii moo rey diw ñu laaj ko ne ndax yaa ko rey mu ne waaw mu ne ndax xam nga ne xam nga lu yàlla wax ci ku rey nit te tey ko mu ne waaw ndax jëggëm nga alquran ji mu ne waaw mu ne xam nga li lay xaar kon mu ne waaw mu daal di ne kon kii yoon wee ko rey ndax moo fi jëlee bakkanu jaambur yoon wi ne moom it na fi jógee su ko defee kenn du ko defati daal di ne ku ci am lu mu ciy wax na ko wax bu ilimaan waxee lam noppi ab diir ba yàgg mu ne ku fi am lu mu ciy wax na ko wax benn yoon la woon ba mu waxee ñaari yoon loola balaa moo ñetteel am ku yëkkati baaraam mu ne ko waxal mu ne ko ñun la reyoon suñu benn rakk xaw ma suñu benni mag baal nañ ko baal nañ ko ngir yàlla euh, loolu moo tax ñu baal ko te bu ngoonee suñu waa kër invité nañ ko reer na reeree suñu kër loolu mooy ku jéggale fatti baawun war na tofal ci bi maarufin ci lu baax waa daawun ak joxe ilayhi bi ihsaanin ci njëkk zalika loolu su ci amuloon nga xam ne mbokki ci dee mën a jéggale mu ne bu loolu amutoon kon dana bon lool waaye loolu nag taxfiifun ak wayefal la min rabbikum bàyyi ku ci seen borom ndax ku mën a jéggale jéggaleeti wa rahmatun te yërmande fa man ictadaa ku jaggati na baada zalika bale nga ba pare gannaaw ga nga meraat te seeg moom nag ne da ngay fayu ah fa loo ñeel na ko aadaabun mbugal nag alimun moo xam ne aji metti la walakum ñeel leen fil qisaasi ci fayu xayaatun ak yéen borom xel yu sell yi laxalakum boo yéen tattaquuna ngeen ragal yàlla bay na lool mu ngi ñëw ci alwasiya alxajaas yi ak ñu bari ci mufassiroona yi dañuy wax ne ayatul wasiya dañ ko folli ne nañ li ko folli mooy xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax naan inna allaha qad aataa kulla di xaqin xaqahu fala wasiyata li waarisin alquran daf ne woon bu nit ki nekkee ci sukkaraat wala mu opp ba sikk boppam na dénkaane ne su ma sama dom sàngam nañ ko jox nangam diw nangam diw nangam diw nangam <clears throat> dénkaane yooyu nga xam ne xa ndax ndax bañ rek mu dee ñoo ñu ñàkk jot ci alal ja mu ne loolu bi yonent bi nag ne képp ku sharia joxoon nag ndax loolu bi biñ koy farataal booba ay miraas bi ñëwagul ba ay ñëwee nag wax ñi doon na ak ñi dul doon na kon buy dénkaaneeti na dénkaanee ñi nga xam ne kon euh, waruñoo donn waaye ñi war a donn moom kenn du leen dénk dara lu mooy dañuy wax ne kon danga nga koo bëggal mu jël li gën a bari loolu la lu ñu bari ci mu mufassiroon yi wax waaye ulamaaw yi ñi nga xam ne nanguwuñu nanguwuñu naasix ak mansuux ñoom dañuy wax ne déedéet aaya ji kenn fàlliwu ko aaya ji dafa bëgg a wax rek ne képp koo xam ne du donn euh, te nga am alal na ko dénkee dara pour mu war ci jot bu fekkee kuy doon la nag mu ñàkk ko am ñoom ne nañ naasix man su amul ci loolu mooy seen position waaye moom rafet na mu ne kutiba bindeef na wala farataalif na alaykum ci yéen isa xadara bu teewalee almawtu dee ahadakum kenn ci yéen in taraka ndem bàyyi na xayran alal alwasiyatu mu ne kutiba naay bi moy mooy alwasiya xadara faailam moo di almawtu yépp gannaaw gi indi na fi geneen jumla ci digg bi muy xaadara almawtu ahadukum indi fi charte taraka xayran doora indi naay bi faayili kutiba kon kutiba alwasiyatu alaykum ida xadara ahadukum ida xadara almawtu ahadakum taraka xayran loolu la bëgg wax mu ne kutiba farataalif na alaykum ci yéen ida xadara bu teewee almawtu de ahadukum kenn ci yéen taraka ndem bàyyi na xayran alal alal lay tuddee foofu xayru ndax man naa def xayru waaye mën naa defit charru alwasiyatub dénkaane lil waalidayni ñan ñeel ñaari way jur ya wala aqrab yi nag jege ñaale mooy doomi ndey ak bay bàyyi bil maaruf ci njëkk nag bul joxe lu ëpp xaqan dëgg la alal muttaqiin war ñi ragal yàlla léegi nag kiñ kiñ dénkoon ko su ma fi jógee nañ jox diw nangam nangam moom mu lànk ko loolooy fa man baddalahu ku soppi wax jooja baadama samiahu gannaaw bu mu ko déggee fa innama ismuhu bàkkaar ba alal lazina war na ñi nga xam ne baddiloonoo ñoo soppi inna la yalla mom aji deggal bu muy denkané alimun aji xam la ci fi dess lim nar def fa man xaafa ku ragal na min musin ci kuñ denk ko xamne dañ ko denkon na nga ragal ne ki dal narul jubal ba ngay dund nga jël tibba ci sa loxo jox diw jox diw jox diw lolay fa man min musin janafan ak jeng aw isman wala bakar, fa aslamu yewenal yéwénal sen na ñoña kooku fa laa isma de benn xeeti bàkkaar alayhi di war ko ndax inna laa yàlla aji baal la mu ko rahimun aji yëram la bay na loolu mu ngi ñëw ci koor ak lépp lu aju ci koor koor ci luxa ñëpp xam nañ ne moo di jàpp rek ini nadartu li rahmaani sawman ay imsaakan sumtu an kaza mooy jàpp naa ca ci sharia nag mooy jàpp ci lekk ak naan jàpp ci lekk ak naan ci fequ fajar ba sowu jant ci éene ji nga fanaanoo ko balaa fajar ci sharia loolu mooy tekki koor def ko nag ngir jëm yàlla ja ci ñépp ñi nga xam ne mën nañu ko koor alxajaas yi dafay wax ne nekk na ci xeetu jaamu yàlla yi nga xam ne tiis na gaa ci bakkan waaye lu mën a sellal rox la nee na entraînement la maanaam riyaada la boo xam ne dafay yarale roxu génneeku ci lépp loo xam ne amal bii la mooy loo xam ne lu négatif la lu amul benn njëriñ mu ne koor dana waajal bakkan it nag waajal bakkan pour mu mën a def muraqabatu yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb itam mu ne koor dina yarit bëgg-bëggi doom aadama ndax lu tax mu yar sa bëgg-bëgg xëy rek ne suba duma lekk duma naan yar ci sa bakkan ba bu xëy rek def ko kooku yar bëgg-bëgg la ba man tàmmal sa bakkan di ko jëmee fu la neex mu ne koor dana tax nit di yenu ay métit te di ko muñ eh, koor yonent bi nee na mooy gennaali muñ ndax ni metti ci bakkan yépp nag loolu moo di koor euh, ci luxa ndem nii la méttee nag yàlla du yàlla du ko du ko sant nit ñëpp fokk rek daf koy sant ñi gëm yàlla foo fekk alquran yaa ayyuha alladina amanu xamal taklif bu jafee ngi ñëw bu ne yaa ayyuha naasu nag mën naa ñàkk mel noonu waaye yaa ayyuha alladina amanu su ko waxee rek dafay wax ne yéen ñi defanteeg man contrat ne gëm ngeen ma yéen ci sama diini jii lii laa leen teg motax mané liber libre nga bi nga nek gu julit waye bo xasse nek julit du lu la neex nak def lolou motax yenen yenent bi ne dunya sijnul mu'min wa janatul kafir adina ci julit ci prison la nek ndax prison moy ñak liberté bo nee ci adina tay julit du lu la neex ngay def même alal ji nga mom duur fu la neex nga ko wara jaay duur fu la neex it nga koy jëlé kon amato liberté ndax ya nangu won ne am nga iman motax ñum la yalla di wo bu jafé nan len ya amanu ndax yéen si signé woon boobu kon def leen lii koor ci atum ñaareel ci gàddaay gi maanaam yonent bi li nekk màkk yépp koor amut bu mu ñëwee Medina ci at mu jëkk mi koor amut ci atum ñaareel mi ci gàddaay gi ci la wàcce aay bi ci suratul baqara dal di wàccee ci koor ci moom ak jullit ñépp ba qiyam loola ba mu ko tàmbali def nekkoon na itam euh, jëf jëfin ju metti ndax koor ni mu njëkk a wàccee ñu di ko pratiquer yonent bi di ko wane ni ñu koy defee mooy soo wooree ba jënt so rek sañ nga lekk sañ nga naan feeñ nelawoo waaye boo nelawoon marax ba yeewu it koor gi tàmbaliwaat na noon la woon euh, soxna yi itam guddi koor kenn du leen laal comme bëccëg bi rek maanaam bëccëg bi lañ la aaye lekk ak naan ak joteeg ñoom guddi koor nag man ngaa lekk naan waaye soxna si bokk bokk gu ci lekk ak naan it feeg ne la wogoo boo ne la wee nag ba yeewu rek ci maras sax sañatoo ko koor gi tàmbalin noonu la wàccee woon mu dal di metti lool léegi gaa ñi sant jaw ñoom ni ngay wor rek du joteeg jigéen ñi ci guddi koor rek te kenn du nett li kenn du wax loola nag yàgg lool yàgg lool ba Omar ibnul Xataab def ko nag ñëw ne yow mi yàlla yoon yónni man dey alkuna mu ne ko lu tax mu ne li yàlla aaye woon def naa ko te it maa dem ba mënuma ko ñàkk def rek léegi nag maa ngi nii ci loxo yàlla lu mu wax ñu def ma ko rek ma xam ne noonu lañ may def ndax man ki jot na ma yàlla wàccee ci biir alquran nag ne guddi gi loolu dindi nañ ko man ngeen a jot ak ñoom xam naa ne yéen ñëpp a nga ko doon def di ko nëbb na kii rek ko ñemee wax léegi nag dindi naa ko bu ne koor moomu warul ñëpp itam fokk dana war koo xam ne ku mën a woor la bu ne mën a woor mu ngi ci jublu ci kàttan ak wér am na ku màgget ba néew doole ba attanut ñàkk lekk ñàkk naan ab bés waye amna ko op ko xamne mbakam ne mënul supporter ñak lek ñak naan ab bes yeb koku faju na wérul manatul wor kor da koy dal di lele rek moy nek farata keneen a ngi fay tukki te tukki mi mënu ana dop bu kor gi jexé mu fay fan yam tukki won keneen ngi dafa op waye du op ju sax ay fan la rek mu na dop nani garabam faju bu koor gi wéyee mu konti fan yooya mu dal kay fay ñooñu may nañ leen ñu dog te duñ ci am bakkaar waaye danañu fay nag waaye duñu jotu amma màggat mi nga xam ne dafa màggat ba àttanul woor wala feebar bu sax bi du wér ba borom mënul woor ñooñu duñu woor de waaye dañuy jotu bés bu nekk dañuy joxe benn mudd saraxe ko bu fekkoon ne tey ci réewu naar la ñoom gis naa leen bu ñuy def fidiya bés bu nekk ñoom benn kilo mburu lañuy ñuy remplacer mudd mi ndax comme yàlla def ne na nekk ak lekk te mburu ci naar daanaka mooy lekk su ko defee ay mburu ay kiloy mburu lay jël bés bu ne mu joxe su ko defee weer wi dina ci joxe fanweeri mburu waaye bu fekkee ci ñun la fii li gën ñun du loolu ndax mburu rek ñun duñ koy dundee li gën mooy bés bu nekk nga joxe ab téeméer bu waa ji demee ca dégg nga ca faat jaw mais dana fekk mu togg loo xam ne dana ko fa mën a jëfandikoo kon loolu lay def loolu mooy fidya ci ki màggat wala mu feebar feebar bu dul wér moom la alquran di wax wa ala alladina yutiquunahu ndax itaaqa mooy loo xam ne mën nga ko waaye ak coono boo xam ne dañ ciy xaw a bëgg a faatu mu ne ñooñu loolu moo leen di war keneen a ngi dafa ëmb walla muy nàmpal kooku dañ koy seet su fekkee ne xam nañ ne mënul boole ëmb bi wala nampal bi ak koor gi te amul jeneen alal ju mën a jëndee ay meew yi doom ji di nampee te doom ji nanguwul keneen nampal ko chart yëpp bu amee kon kooku du woor waaye dana fay de du woor day nampal ba feral wala day ëmb ba imbi waaye dana fay waxuñ nag jigéen jum neex rek nga ne damay nampal wala dama ëmb dañ ne na fekk mu wóor la ne wala médecin bi ne la mënoo boole ëmb bi ak koor gi wala nga woor ba bëccëg nga daanu ñu jël yóbbu ci docteur bi sage bi ne kii dafa ëmb du woor mu nekk lu wóor loo xam ne am nañ ci ay preuve wala dàmpal gi itam amula soow boo wooree amula xaalis jënd meew wala baayam amul xaalis pour jënd meew te it wala gune gi bëggul biberon bi wala nanguwul keneen nampal ko kon doo ko bàyyi muy dee dangay ngay ñàkk woor waaye da fay ñooña la amaa nag alxajaas yi na loolu nag shafii ngeerum shafii la nee na bu fekkee ne gune gi koor gi day lor gune gi di loraale ndey ji mu ne kon na dog te du fay dana lele loolu nag maalik yoon yi ñoom duñ ko nangu ñoom fay rek gannaaw bu mbir mooma weesoo kon loolu mooy leen na ci ay atte yu aji na ci koor ndax koor mën nga wax ne rek anniversaire u alquranul karim la ndax ci la wàccoon moom alquran loola ay xadis yoo xam ne Buxari nettali na ko alquran dañ ko wàccee ci bëmbëstan yépp ci weeru koor ci xëytil weeri koor ci leetul qadri mu ñëw nag yàlla teg ko benn béréb nag xew-xew bu ne mu indi aaya loola itam méthode pédagogique la woon xam nga bu téere bi tëboon tëb wàcc rek nit ñi dañuy tiit ndax rëyaay gi duñ ko man waaye dañ da koy teg fenn léeg-léeg benn aaya ñëw gaa yi mokkal ko xam ko ba yàgg beneen ñëw su ko defee nit ñi duñ yokkat ndax yi day ñëwee ndànk-ndànk waaye wàcc gu njëkk gi nag ci leetul la woon ci weeru koor yooyu la alquran di ba mbëstan fii naan yaa amanu yéen gaa ñi gëm alquran kutiba farataaleef na aleykum ci yéen asiyaamu koor kama kutiba naka farataaleefee moom koor ala ladina ci ñépp ñi nga xam ne min qablikum nekkoon nañ ci jëkk seen égyptiens yi daanañu woor ci jamonoy firawna ya chinois yi daanañu woor romains yi daanañu woor jëlee ko ci ñoom itam ñu jëlee ko ci chinois yi ak arab yi ak égyptiens yu njëkk yi daanañu woor yonent yàlla woor na balaa tawreet wàcc ci moom yonent yàlla Isa woor na ñeen fukki fan balaa tawreet wàcc ci moom seen koor googu mooy door a jeex ki tey jile loolu yëpp kon nag xeet yu njëkk yi defoon nañ ko diinu yu njëkk yi defoon nañ ko kon yéen bu ñu leen tegee koor xam leen ni métti wut ndax kama kutiba ala alladina min qablikum yéen nag li tax ngeen koy def du pour roy ñooña waaye laal la laallakum boo te tattaquuna ngeen am taqwa yéen looloo tax ngeen di ko def te it bariwut nag ndax du at mi yëpp ayaaman ay fan rek la maadudaatin yu ñuy lim fanweer ñaar fukk ak juróom-ñeent moo ci gën a bari booye boo nga ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dong lay nekk ndax noonu la ko yént bi waxee dafa jël ñaari baaraami loxoom dëppe ko ne asharu hakaza wa hakaza bu mujj bi mu bank benn baaraam bi ne wa hakaza kon weer weeru xamariya ñaar fukki fan lay doon ak juróom-ñeent kooku jan loolu la xam-xam saxal li ko waral moo di ne comme weer wi du nëbbu day day am waxtu woo xam ne rek suuf si na muy wëndeeloo day tax ba ñun bu guddee suuf si dox suñ diggante ak weer yi ba duñ ko séenati ndax jant baa nga fee weer waa nga fee weer moom ni mu tudd rekk la tudd leeru jant bi nag day tàppe ca weer wa leer gi def inikaas jëttu ñëw ci suuf si guddi ñu di ko gis waxtu woo xam ne suuf si jaar ak diggante jënt bi ak weer wi rek ñun dootuñ seen weer wi ñu daal dina deena ndànk ndànk nag la koy def bu teyee mu wàññi ci bu teyee mu wàññi ci ba yàgg rek suuf si daal di ko raw tuuti bu ne yëxet daal di ko raw muy terute mu génn daal di def hilaal nga gis loolu ñu naan croissant mu di hilaal daal di nekk lu dëngalu këlu urjuunil qadim la ko alquran tuddee niki ki bànqaasu tàndaram bu wow mune non lay lon non lay lonkaloo su ko defé jant bi tëgg tëbb ko ben degré lèr mu genn ñu gis ko bo legge mu jox ko ñaar ñet ñent bu ko di ko diko jox ba jox ko fukki degré ak ñent jant bi wéru yi di mat mana jant bi commencé di nangu mana suuf si dox seen digënté ndànk wéru di jeex mu diko nangu su ko nangoté ba nangooti fukki degré yi ak ñeent yam ko joxoon muy ñaar fukki fan ak juróom-ñett bu cee lëg saa rek mu may ko benn mu dal di génn moo tax noonu rek elmiya noonu lay mel li ci indi fan mooy benn waay bu sob la woon ba yonent bi ne weer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la benn waay talal loxo mu ne ko lan la mu ne buñ ko gisul nag mu ne ngeen matal ko fanweer weer looloo ko ci indi moo mu ne ay fan la yuñ lim fa man kana ku nek na min kum ci yéen maridan di aji op ci bir koor ga aw ala safarin wala mu nekk cim tukki fa iddatun warna ko mu wutal fan yoyu in ayamin ci fan uxara yenen wa ala allazina warna ñi nga xam ne nag yutiquunahu danañu attan ko jalal day wax ne laa yutiquunahu mom day wax ne nañ fi natale genn la wax ne wa ala lazina laa yutiquunahu maanaam ñi ko manut fekk déedéet وعلى الذي دفي جمرك وعلى الذين يطيقون الإطاقة موي فعل شيء بجهد جهيد نيغا خامني بو نيي وور دي بغ فاتو ньоญو لا واخني وارنا لين فديتون جوتو طعام مسكين ليل اي مسكين ньоญو نانكو ديف فمن تتوعا كو تشوبريونا خيرا ني ن بس بو نيك تيمر nga def ñaari témèr ah fo wolalu kan khairun mo gën la way ñel ko wa anta sumo su ngeen tukki won di wor lola khairun in kuntum mu nekk ngeen koy taalamuuna di xam ne boole tukki mi ak koor gi moo gën kat di ko leb lu tax mu gën li tax mu gën moo di ne faydu la ci war loolu benn la ñaareel bi mooy fani koor ga fani koor ga rek la soo koy fayit ci beneen yeneen fan la waaye dootul fani koor ga kon ayaamin uxaar rek lay nekk kon nag wante sumu xeyrun lakum in kuntum taalamun chehru ramadan weeru koor alladi mooy weer wi nga xam ne unzila wàcceef na fii ci moom alquraanu alquraan ji hudan mbir mu nekk di njub li naa si ñeel nit ñi wa bayinaatin mu nekk di aji leeral min al ci njub moom wal furqaan te muy teqale dëgg ak fen fa man shahida ku teeweeti na minkum ci yéen ashahara weer wa fal yasumhu na ko woor waxut ne ku ci teg sa bët waxut fa man raa waaye fa man shahida la te xam ngeen ne ki koy ki koy wax dégg na làkk yu quraysh làkkee te te xamoon na ne bu ma ne fa man raa kon da koy gis ak bët waaye def ne fa man shahida ku teeweeti na rek minkum ci a ashahara weer wa falyasumhu na ko woor mooy boo ci amee xibaar rek booye ba nga dal koy woor waxtu woo ci amee xibaar nag naan damay xaar di wëg ah man de dégguma nangam mu ne xamal ne ci ëllëg sa sag lekk sa naan yépp xaraam na yaa ngi ci ak mooy yàlla goo xam ne gu sotti la ndax buur def ne woon rek fa man shahida minkum shahra falyasumhu wa man kaana ku nekk na maridan aw safarin wala mu nekk cim tukki faidatun war na ko mu wuutal min ayaamin ci fan uxara yeneen jooju aaya waxoon na ko da ko baamtu alquran dafa fasaaxa ndax bu waxee dara ba yàgg am lu mu ci bëgg a teg te lee da nga koy bëgg a fàtte da koy baamtuwaat ba nga xam loola nekki nga xam ne dafa ëpp wala day tukki dafay leb dafay fayaat yuridu bëgg na laaw yàlla bi bikum ci yéen al yusra ak yombal waaye walaa yuridu bëggul mukk bikum ci yéen al usra jafe moo tax mu ne ku munul na leb li tukmiloo wali tukmiloo ak it boo gisee mu ne boo lebee fayal dafa bëgg nga matal al iddata lim ba wali tukabbiru laa ndax ngeen di màggal yàlla itam alama ci li nga xam ne hadaakum jubal na mu leen wala alakum boo yéen tashkuroon a ngeen mën koo sant ci loolu le bayegul ati koor benn waay benn arab yi dafa ñëw na yonent bi sama problème daal mooy nga waxal ma yàlla rek man gëm naa la gëm naa yàlla gëm naa sa téere lima bëgg dal nga wax mako moy ndax yalla ku jégué la wala ku sori la ndax ñun arab dañu am nuñuy woyé ku jégué ak nuñuy woyé ku sori ndax alhamdulil lil lil baidi ya, bu sori mané ko ya bu jégué mané ko ah leg lool nak nag loolu laaj nga waxal mako bur dal di tontu ne wa idha saalaka ndem laaj na la ibadi sama jami anni ci man sama nekkiin ndax jégué na len sore na len nga tontu ne fa inni man yàlla qaribun aji jege laa leen jege naa ba ujibu danaa wuyu daawata daay woote aji woote isa daani dem woona ma ndax jege du tekki lu mooy koo xam ne foo nekk ma nga fa ba waxee mu dégg mu ne man nag jege naa ba booy woo ma di la dégg kon man maa jege kon fal yastajibu lii ma it nañ ma wuyu ci li ma leen di woo jëmee ci mooy wal yuminoo nañu gëm bii ci man laallahum ndax ñoom yarshudoo nañu jub waxilla daganaleef na nag la kum leen léegi laylatu siyaami guddi koor rafasu jote ila nisaayikum ak seeni soxna ndax xam naa xel ne hunna jigéen ñooñu libaasun ñoom rek ñoo di seen sutura la kum ñe leen góor ñi wa antum yéen it nag bu ngeen fi nekku toon du baax ndax libaasu yéen sutura la hunna ci jigéen ñi alimallaahu xam na yàlla bu yàgg ne annakum yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna di wuruj anfusakum seen bakkan seen bopp ci lool di ko def di ko nëbb waaye fa taaba nangu na tuub aleykum ci yéen wa afa bale na an ankum ci yéen fal aana léegi nag bashiruhunna na ngeen jonjog ñoom dafa am mbir yoo ne bu ko yàlla defati nit def ko jonjo leen ak ñoom lekk leen naan leen moom bu ko waxuloon nit dina ko def kon nag war nañ koo sant ci bi mu ko waxee ndax bu ko waxuloon nag mooy yàlla ak mooy la it daan ko def de moo tax kon bi mu ne na <coughs> jaam bi gëm yàlla war na ci sant yàlla ndax ko waxuloon day doy waar wabtaxoo na ngeen sàkku it la bind na ko yàlla kum ñeel leen mooy doom ukkuloo lekk leen ci guddi koor washraboo naan leen ci guddi koor ba kañ xattaa yatabayyana ba data ba data ba bata biree ba bata leeree ba bir lakum ñeel leen alxaytu rëdd wa al abyadu wa di aji weex min alxayti ca rëdd wa al aswadi wa di aji ñuul min alfajari ca laala moom fajar sa abdullah ibnu abbas nee na kuy tëdd ci ñun da daan gegganoo wëñ gu weex ak gu ñuul soo ko génnee ci bitti yëkkati nii xàmmewoo ko rek nga lekk wala nga naan boo yëkkatee mën koo xàmmi rek nga ne euh, léegi kenn dootu lekk kenn dootul naan mu ne noonu lañ daan def bi yàlla waxee indi aaya bi nag ne minal fajari ñu ne ah kon duul xàmmee wëñ gu weex ak gu ñuul waaye rëdd weexak wu ñuul nga xàmmee ko ci leeru fajar si nga xàmmee ko ci lëndëm ak guddi ga ca penku ba su ma atti moo ngeen tàmbalee woor foofa di ko matal siyaam ak koor ga <laughs> ila ba ci guddi ga léegi nag ku ciy def li itikaaf te jaamu yàlla la gu raar léegi ñu néew a koy def moo di ne koor ñëw nga dawax wax ak ilimaan dem ca benn néeg ci néegi jàkk ja rek dëkk fa dëkk fa su ngoonee ñu jox la sa ndogu jox la si ndox foofa ngay nekk doo génn jëm ci mbenn mbir soo koy def ci dëkk nag ci jumaa ja ngay nekk ndax boko defé ci jàkk bon bu aljuma bu la fekk nga wara génn dem ci juma ji te waro génn loolu moy li i'tikaf ku koy def nak soxna yi buñ ñu la indilee lekki nañ ko fa tek te dem waye do mën jëtte ak ñom loolu lay wax ne wala tubashiruhunna bu len jëndjok jigen ñi wa antum ci yena akifuna way sax ngeen fil masajidi ci jàkk yi def li i'tikaf tilka loolu hududullahi moy daylu yàlla fala taqrabuha bu len ko jege waxuma ngeen def ko dama ne bu len ko jege kazalika nak nonu yubayyinu laahu lay biral yàlla ayati alquranam li naa si ñeel nit ñi laallahum ndax ñoom yettaquuna ñu mën koo ragal bay na loolu ma ngi jëm ci muamala ci alal muy njar neexal nit mu defal la lu lu duhut yoon wala ku waroon lëggéeb lëggéem même buñ ko joxul dara léegi nga koy jox mu door a def nga jox ko mu gaawal joxoo ko mu yiixal wala koo xam ne dafay atte boo ñëwee tënkaayi ganaar joxaale ko ndim xar joxaale ko ndax da nga am problème bu ñuy attee mu ne loolu bu leen ko def yow mi yóbbu alal ji am nga ci bakkaar waaye moom mi kon nangu itam am na ci bakkaar moo tax borom bi ne wala taakulu bu leen lekk am waalakum seen i alal baynakum seen diggante bil baatili ci caaxaan wa tuddloo ngeen di sanni biyaa ci alal ja ilal xukkaami ca attekat ya di ngir ngeen lekk fariqan ab kuré min amwaali naasi ci alali nit ñi bil ismi ci bakkaar luy luy li taakuloo fariqan min amwaali naasi bil ismi neexal xar mi nga jox qaadi ji magistrat bi bi nga ko joxee xar mi danga bëgg mu àtteel la alali jaambur ji ngay xëccoo nga jël ko ci bakkaar loolooy li takulu fariqan min amwaali naasi bil ismi wa antum te yéen taalamuuna ngeen di xam ne loolu daganut bay leen ko bay na loolu ma ngi dellu si ci liñ doon wax léegi ci affaire yi weer wi ni muy xëyee ba yàgg muy teru di sew ba yàgg mu ñëw di màgg gaa yi dañoo ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam fokk nga wax ñu weer wi lu tax muy sew ba yàgg muy rëy ba yàgg muy sewaat yàlla nag bëgg leen a yedd li mu leen di yeddee daf leen a bëgg wax ne yónent bi dañ koy yónni ngir diine ak muy waxe ak xol ay saafara ay xol yoo xam ne dañoo ëpp def ci tawxiid ak sharia loolu lañ koy yónnee waaye duhut nituk scientifique boo xam ne daf leen di jàngal géographie nu weer yi màggeeg yooyu loolu taxu ko jóg kon nag kuy demati ci kër na nga jaar ca bunt ba waaye bul jaar ca poot ba kon kuy yónni ngir diine na nga ko laaj diine loolu la bëgg a wax moo tax mu ne yasalunaka yasalunaka ñu ngi laaj la anil ahillati ci teru teel weer wi ni muy seweek rëy xul tontul ne hiya loolu day mawaqitu naas yàllaa ko def ngir sàkkal nit ñi ay waxtu ndax ñu naan bu weer yu dee ñu ne koor gi teru na tabaski teru na looloo tax yàlla def ko wal xaj ji ndax ñu mën a xam waxtu aj waaye antaatoo ngeen di dikkal al buyoota kër ya min zuuriyaa ci gannaawam waaye bu leen dikkee ci kër yi ci gannaaw nit ki na ngeen ko laaj li liñ ko yónni liñ ko yónniwul ngeen bàyyi ko walakin al birra waaye ak baax daal man ittaqa mooy ku ragal yàlla kon wa aatu na ngeen dikkal al buyoota néeg ya min abwaabiyaa ci bunte ya leen laaj ab yónnente li tax ñu yónni ko laa ragal leen yàlla laallakum ndax yéen tuflixuuna ngeen texe ndax it lu tax mun a ragal leen yàlla bu boo yaakaaree ne kii yàllaa ko yónni naa ko laaj ci science critiqué ko laaj ko loo xam ne day gag wala ma lottal ko ñu xam ne yàlla yónniwu ko moo tax mu ne wattaqullaha laallakum tuflixuun te xam ngeen yàlla du ko bàyyi bu ngeen ko laajee it ci science it mu tontu ca ndax gis nga wax na ne lii moo tax ñu di ko def amma ni mu koy defee nag ci diggante dox ak weer week jënt beeg suuf si loolu nag moom taxu ko jóg bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci jihaar ci yoonu yàlla ak bu fekkee ne dafay am dafay am aw yoon wu ñuy war a topp ki xeex ak yow nga xeex moom ki xeexul ak yow nga bàyyi ko ki na nga fa imp nga nga bàyyi ko balaa ngaa jihaar dangay ngay ci diine mu lànk nga ne ko bul xeex ak man mu bañ nga ne ko fay ma impo mu bañ alxajaasi ne na lii aaya bi ñu ngi ko wàcce woon sax ca sulxul hudaybiya sulxul hudaybiya bu ma la koy tënkal damay wax ne yonent bi alayhi salaatu dafa jógoon ne dafay umra wala dafay aji màkk ba mu ñëwee ba ci béréb bu ñu naan Hudaybiya mu ngi nekk diggante màkk ak Medina wala jidd ak Madina léegi boo demee mooy Carrefour yoon wu jëm Taïf ak wu jëm jidd ak wu jëm mu ñëw ba foofu Quraysh dégg ko ne foofa lay yendu ñu daldi génn nag ñu génn nag ak seen gëlëm ya gëlëmi ratte ya yenent bi yebal benn jaasuus benn rej rej mooy agent secret rej ba dem reju leen ñëw ne yenent bi ñoom day gëlëm yay nàmpal lañu génnee mu ne arab day bu génnee gëlëmi ratt nar naa yàgg ci génn ga ndax dañuy ratt ci soow mi rek di naan ndax meewam gëlëm du way meew rek lay nekk ba faw su ko defee ñuy conservé di naan rek kon nag ñii dañoo bëgg a yàgg li ñu bàyyi xel mooy faw rek yonent bi du dugg a mag mu ne baax na kon nag man de dama buggoon yebal yebale foofu tey koo xam ne daf may xamal daf leen di xamal ne xeex siwu ma ndax indiwu may ngànnaay indiwu ma lu may ay xaddaasi arab nag lu mu ñàkk-ñàkk ngànnaay yore paak bu rëy boobu xaw a toll ni jaasi moom lu mu ñàkk-ñàkk ngànnaay yore ko moom foog mu takk ko ñu ne yooyu rek lañ yore kon ñëwuñ pour xeex ñu ne nañ yónni Alioune gaa yi ne kooku boo ko yónnee ba Hachim daanaka kenn desu fa dañ koy rey Abbas rek fa des mënul mënu koo aar ñu ne ñu yónni Omar mu ne Omar boo ko yónnee Bani Adiyin dañ koo mere te duñ ko aar kon ñu rey ko ñu ne Babacar mu ne moom noonu jarul nga di ko jéem a yónni su demee dañ koy dal di alak ñu ne ku ñuy yónni gaa yi ne nañ yónni Ousmane ndax banu umayata ñooy buri makk tey te moom ñoom ñoo bokk baay kon seen famille waa waa umayata ñoom ñooy buri màkk bu sufiyaan ak euh, gaañooñu kon nag <coughs> ñu ne na Ousmane dem Ousmane dem màkk ba mu demee dajale Quraysh ne euh, Abu Sufyaan yonent bi ma yónni mu ngi fii ci Hudaybiya nee na na ngeen yëg ne xeexut xulawut dafa ñëw ngir jaamu yàlla ci néeg bii kon nak ngeen bayiko ko mu tawaf def sawak marwa te jeexal ñu ne ko yow day yow su la neexee nga tawaf def sawak marwa yendu ci kaaba gi ndax yow kenn nga ci ñun waye mom day du jégué mukk bi néeg te iren bu seri neena na Ousmane yi nee na ndem yonent bi du jégué fofa mom itam mu ne sipna di fa jégué kon day melni warna war du ko def momit bëggul mu jëm négocier ñu ñu tekkoo mu ne dafay toog ab diir ko moom ñoo bokk bàyyi amaana mu mën ci dara mu nekk fa nag di wax di wax seytaane dal di ñëw na bi gaaya ya rey nañ ko banu mayata war nañ Ousmane rey nañ ko bi dal di kanam gi soppeeku mu dal di jël loxo joram jël loxo càmmoñ bi teg ci dal di ne loxol Ousmane a ngi nii tegu na ci sama loxo jaayante na ak yàlla kon ku bëgg jaayante ak yàlla dana dugg Quraysh ak nun ne nun ci mën a duggee nag dana dugg mag ba nga xamee ne ni ñépp ñëw nañ di jaayante saadu nee na dañ doon jaayante ne duñ daw feek dee rek ak lu mën a ñëwit duñ dellu gannaaw ba nga xam ne Quraysh yëg na loola ñu ne ah, aa kat nañu ko gëmee ak seen doole jale bu ñu duggee boo sàgganee dinañu yàq ñu ne lu ciy pexe ñu ne xanaa ñu yebal benn ambassadeur ñu nit comme yebal na ambassadeur am muy Ousmane ñu yebal keneen moom it bu demee mu jéem a négocier daal pour jàmm am ñu seet daal nu ñuy charte ak moom ñu jox ko seen i charte ñu yebal ku ñu naan Suhaylu ibnu Amrin Suhaylu daal di ñëw ba ko yonent bi seene muy ñëw mu ne koo kan la ñu ne kee day Suhaylu ibnu Amrin la mu ne waa bàyyi leen ko Quraysh jàmm lañ bëgg moo tax ñu yebal Suhaylu ndax tur wi rek moo koy tekki bàyyi leen ku mu ñëw bëggoon xarfaan yu mel noonu la tur yu rafet ak tur yi tekki dara sooy lu ñëw ba mu ñëwee toog ak yenent bi ku nekk ci ñoom dal di gëppare ku sukk seen ñaari óom yi di tegoo mu daldi nag jël loxoom téye ci sikkimu yenent bi yenent bi war a téye ci sikkimam nag ñu war a wax Ali ne ko loolu moom du fi mën a amee moom yow yéeféer bu bon bu sobee sa loxo yu bon yi téye ci yenent sikk muy sikkimu yenent bu tedd bii kooku moom du mën a am moom waxal noonu rek mu nekkoon nag wax du mën a am ndax fokk loolu la yonent bi ne alin bàyyi ko ndax loolu moo di seen e, aada kon nañ ko def te yow na nga yittewoo ñëw di bind li nu war a juboo maag moom ñu def noonu mu daal di ne bismillahi rahmaani rahim sooy li ne far leen loolu du baax ndax ñun bismillahi rahmaani rahim gëmunu ko na nga def li quraysh xam bismika allahuma ñu ne waaw ba tey bismika allahuma mu daldi ne lii la wóolaranteeg muhammad rasulullahi ak quraysh sooy li ne faral rasulullahi defal li arab xam muhammad ibni abdullah loolu la nu xam ali lool ah loolu nag de moom moom du ko def moom far rasulullahi te bind ko gëm ko di ko dindiwaat lool moom du ko mën <laughs> xaw ma benn loxo waaye bii loxo moom du saxal rasulullahi ba pare di ko faraat yonent bi ne ko alin wan ma fu mu toll ndax moom du gis mbind ma far ko mu ne ko fii la mu daal di ko faral boppam daal di ne bindal lii la wóola renteeg Muhammad ibn Abdullah ak Quraysh du euh, ngeen xeex ak man duma xeex ak yéen diirab nangami at yii ku dawee ci man ku dawee ci jullit ñi murtat ñëw màkka kooka duñ la ko delloo waaye ku dewe ci mushrik ci yéefar yi tuub ñew ci sa diine dang nu koy delloo sidna omar ci wet gi dali ne ah kon de nga xamne ñun charto bi ñun ñoo ci gëna a ndax ñun ku murtët dañ koy bayyi ñom nak ku gëna seen diine ñew ci l'islam nu delo ko yonent bi ne omar xanaa du man la yalla yoni mu ne anam ah, ma ci sax sik ken yow la yalla yoni mu ne bayil kon ma def lima sama borom sant omar dal di noppi booba yonent bi alayhi salatu salaam xam na lu ñu xamut ndax yonent bi dafa xam ne kii xas murtad génn lislaam koo ko jarul delloo boo ko delloo it la xayra fii baaxatut xam na itam ne xam na itam ne ki nga xam ne tey dafa gëm yàlla daw ba ñëw madina ñu delloo ko màkk iman boobu dootu ko bàyyi te ñu gëm ñooñu bu ñu leen delloo màkk bu ñu baree ñooñu ñooy préparé ëllëg te ci ñoom la loolu itam moo ko loolu la gisoon te ñun gisuñ ko moo tax ne bàyyi rek dara nekku ci ba ñu sartooyee loolu nag loolu la aaya bi di junj lëf la ci e, sulhul Hudaybiya yàlla ne wa qaatiloo xeex leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla la si naag ñi nga xam ne nag yuqaatilunakum danañu xeex ak yéen bañ a def ak yéen maslaha waaye wala taatadu bu leen tooñ mukk nag ndax na laa yàlla moom laa yuxibu du fay almuctadiina way tooñ ña way jéggi ña dayo waqtuluhum rey leen yéefér yi xaysu saqiftumuhum fu ngeen leen fekk rek wa axrijuhum génne leen leen min haysu axrajokum fu ñu leen génne bu ñu leen génnee rek fayu leen ndax wal fitnatu fitna ji ñuy def ci yéen di leen génneeg di nangu seen alal ashaddu moo gën a tar moo gën a metti min al qatli jig rey sax am na fitna boo xam ne rey moo ko gën ndax bu rey moom bu rek fii moom jeex na wala tuqaatiluhum bu leen xeex ak nag yéefar yi inda al masjid al xaraami ci jàkk ji ormal ji màkk nag ci kaaba gi bu leen fi rey kenn bu leen fi xeex kenn xeex bu mu fi am ñu ne loola fawwa buur ne xataa yuqaatilookum lu mooy ñu xeex ak yéen fii ci jàkk ji loolu moo tax rebel yi duggoon ci kaaba gi atam am nañ fa lu mat ñetti fan kenn mënu leen a rey ndax it fokk ulamaaw yi daje def ifta seet ba xam war nañoo xeex ak ñooñu ci kaaba gi wala déet ba ñu dajee ñu ne yàlla waxoon na ne wala tuqaatiluhum inda al masjid al haram xatta yuqaatilukum fihi comme ñii nag ñoo fi xeex ak nun kon ñu nit nañu xeex ak ñoom fa in qaatilukum bu ñu xeex ak yéen faqtuluhum rey leen leen ndax kazalika fuñ dut xeexee nga ñëw xeex fa nga rey kooka jazaul kafirin mooy payug yéefar faynin taxaw bu ñu daytaloo nag ne ñoom defatuñu benn musiba kon ngeen baleen ndax fay na laa naka yàlla xafurun aji baal la mu leen raximun aji yéram la mu leen wa qaatiluhum xeex leen ak ñoom xataa laa takkoona ba du nekk fitnatun fitna wa yakkoona tey nekk diinu diine ji yépp li lay ñeel yàlla fay nin taxaw bu ñu daytaloo nag kon ngeen baleen falaa udwaana déet ak noonee ilaa ala dalimin lu may ci ñi nga xam ne ñooy weddi ci tooñ ashahru weer wa haram wi nga xamne ne dañ haram al xare su fekke dañ leen koy ngagne na nga wax ne bi shahri mu nga deppok weer wa alxaraami wi haram xare te ngeen song ñu ci wal hurumat ati ay hurma nak qisasun fayo nga ca nit ki nak bu fekke yalla daf ne weer sangam dafa haram te dana ñew inshallah suratul maida ashurul hurum yi nga xam ne la léegi bu fekkee da ngeen ñuy ñaawal ci ne noo ngi xeex ci weer wun waxoon ne xaraam naa xare liñ leen di tontu mooy yénit song ngeen ñu ci weer wi xaraam a xare te ku xotti saxoor ma war ngaa fayu looloy asharul xaraamu bi shahril xaraami wal xurumaatu qisaasun fa man ictadaa ku jàggati na ba tooñ aleykum ci yéen fa atadoo yénit na ngeen jàggati ali ci moom misla ma atadaa kem li muy jàggati aleykum ci yéen waaye bu leen tooñ wa taqullaa raga leen yàlla waalamu xam leen ne anna laa naka yàlla maa almuttaqiin ànd naag ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla wa anfiqu na ngeen di dundalee ko joxe fii sabilillahi ci yoonu yàlla wala tulqu bu leen sànni nag bi ay diikum seeni loxo ila tahlukati jëm ci dee bu kenn xaru loolu dafay tekki ne doomu adama sant nañ ko mu wattandiku maana bul wax rek na yàlla lu ko neex mu dogal ko toog rek naan yàlla bu ko dogalee kenn mënu ci dara ba dem rek ferenkalaayu ci raay ba naan bu ko yàlla dogalee da koy daal di dogal léegi motax mu ne wala tulqu bu len sanni mukk bi ay dikum seen loxo nak ila tahlukati jëm ci de ndax ku ko defit yak de sabab wa ahsinu na ngeen rafetal inna la yalla yuhibbu dana fay al muhsinin ni nga xamne ñoy rafetal bay yoyu atté atte mu ngi jëm nak ci wax na ci koor wax na tuti ci jihar legi dafa bëgg wax nak ci mbirum aj ak mbirum umra aj moy moy harmal génn ci yére yi ñaw bu fekkee ne góor la ci weer yoo xam ne yi ñu xam la dana ko wax ca kanam ashurun maalumaat su ko defee weer yooye boo cay aj boo xarmalee te ay na aj wër kaaba gi dox safa ak marwa <clears throat> loola dem arafaat loola la ñuy tuddee ak aj amma buy umra nag mook aj benn la waaye umra moom arafaat ak minan da cee bokkul rek moom boo waree kaaba gi dox sawaak mar fi la umra yem loolu la mu ne léegi nag képp ko xam ne danga am hadiyu te hadiyu mooy lay niru tabaski ndax kuy aj ak kuy umra tabaski dala laa warut loolu la war moo tudd moo tudd euh, hadiyu xeeti nusuk yi nga xam ne mooy am ci aj mooy hadiyu ak fidyatu ak jazaaw lan mooy hadiyu hadiyu ku def tamattu ak qiraan walla kuy coobarewu mooy rend uh, ak gélem walla nag wala xar wala bay ca minan bésab loj ba loolu moo tudd hadiyu ak jaamu yàlla ndax roy yonte yàlla ibrahima na mu ko defee woon ndax ñi demul màkk sax ñu ngi koy roy di def am tabaski looloy hadiyu léegi nag am na lu ñuy tuddee jaza jaza mooy dañ ne woon ku xarmal tey bul rey mukk benn rabu àll yow nag nga dem rey wenn rabu àll la ñu ne bu fekkee ñey la kon euh, moom nga rey na nga joxe gëlëm goo xam ne gëlëm ak ñaari jagan la bu fekkee ne euh, euh, njamala la na nga joxe gëlëm ak arab mooy gëlëm ak benn jagan gëlëm ak ñaari jagan mooy gëlëm ak faris mooy ñaari jagan lay am nit ki di toog ci digg bi am la ñu tuddee buxt gëlëm ak arab nag benn jagan lay am boobu la ñu xam fii ndax arab yi nga xam ne ñoom la Euh, dendal noonu la ba ci badam yéeg xar yéeg ba yeeg bu ci ne rek am na lu mu tolloo ñaar ñu maando nag ñooy ñëw ne lii li mu def daal lii lay tolloog <laughs> loolu la ñuy tuddee jëzaaw lan mooy fidya dañ ne woon ku xarmal du daggu weer du dagg kawar du def nangam du def nangam nga def lu ñu tere kooku la ngay rey kooku fidya loolu la tudd loolu muy am ci euh, xeeti aj mu ne léegi nag <laughs> wattu googu nga nga xam ne da ngeen koy def bu fekkee da nga xarmal bul wattu mukk na nga bàyyi ba saxaat yu ma teew ca mu nga xam ne da ngay dal di reyxat yu ma door a watu moo tax yàlla ne wa atimu matal leen alxajja aj gi wala umrata umra bi illaahi mu ñeel yàlla fayin wax sërtum ndeem fegeef na leen lan mooy ndeem fegeef na leen nit ki dafa xarmal bëgg aji ñëw ba jidda feebar wala aw yoon amatul wala mu jóg ba xarmal am noon dox ci diggante bi wala mu am galankor te xarmal na te kep ko harmal rek bala harmal jeex fuk war ngaa wër kaaba ga dox safa ak marwa mu door a jeex ki nak manul dem nan lay def mu ne koku day jëndam xaat yu rey ko moo jotute la yent bi dewon ci Hudaybiya dafa ne legi kon nak sahaba yi nañ dal di loj suñu gelem te dem sahaba yi ne tekk ken woyuwu ko mu dal di ne ummu salamata musiba amna digelna digal naa euh, julit ñi bañ nañ ma te ab yonent bu digalee buñ ko toppul musiba day wàcc ci xeet wa mu ne ko bul gaawtu da ngay jël sa da eh, jël sa gëlëm dal di ko loj ci sa loxo woo sa watkat mu wat la rek danañ la topp ndax seen xol neexut ndax ñëw ba jublu màkk ay yéefar ne duñu dugg neexut leen mu def loola moo tax yàlla na fa yéen wax sartum ndem fegeef na leen ba mun leen a dugg fa mas tey sara war na lépp lu jàppandi minal hadi yi lu jàppandi ci hadi yi mooy bu gëlëm jàppandee bu jàppandiwul nag la bu jàppandiwul xar la bu jàppandiwul béy la looloo fi mastaysara min alhadyi wala taxliqu bu leen wat nag ruusukum seen seeni bopp na ngeen bàyyi kawar ga ataa yabluga ba jot alhadiya mahillahu bérébam ba moo tax daaw benn waaye def ifta kilifa la sax dal di ne bu ñu sànni jamra rek dañoo daal di dañoo war a watu dem euh, tawaafi doole di këree haj yu ma ne ko déedéet fii kay dara waru fi loo fi def rek baax na te sax bu fekkoon dañuy seet nizam bi nizaam bi moom dangay ngay rey xat door a wattu ndax yàlla def ne xatta yablugal xat ya maxilla fa man kaana ku nekk ne minkum ci yéen maridan di aji opp aw bihi wala nekk ci moom azan lor min rasihi ci boppam mooy koo xam ne dafa dañ ko xaañak dafa am ngant ci bopp bi fokk mu watu te dañ ko aaye woon mu dëgg kawar su watoo nag fa fidyatun loolaa doon wax léegi war na ko jotu <clears throat> loola min siyaamin na woor aw sadaqatin wala mu saraxe aw nusukin wala mu rendib gàtt boo xam nusuk lañ ko tuddee fa iza amintum bu ngeen demee nag ba am kóolutee ba nga xam ne léegi ñeme ngeen kon euh, bu ngeen wóoloo booba ngeen di def loolu bu fekkee ne ay ragal ak ay mbir moo doxoon sa diggante ak mënoo woon a matal aj gi waxtu waamee sécurité kóolutee na nga rey loolu léegi nag mu ñëw ci xeeti aj yi ifraat tamattu ak xiraan xiraan ku ko def had yu war na la kooku dafa nekk ci sunna Malik indi na ko ci mu muwatta euh, euh, ifraat ku ko def at yu warut la bu la neexee na nga coobarewu yokk sab yool tamattu na ku ko def alquran nee na fokk na nga rey at mooy ngay umra summeeku ci diggante bi bu aj jotee nga armalaat aji loolu moo di tamattu moo tax buur ne fa man tamatta ku xéewu na bil umrati ci jiital umra ilal xaj ji doore jëm ci aj gi fa ma stay sara war na ko lépp lu jàppandi min al had yi war na ko lu jàppandi duwul nu la neex ngay def mooy ni ma la ko wax waxoon gelem lay doon su ko amut nangam nga wàcc si looloy mastay sara min al hadi fa man lam yajid ku amul nag xeeti gàtt juru kër gi ñuy yépp amu ko te def na tamattu nu muy def kooku fa siyaamu salaasati iyaamin war na ko woor ñetti fan fil hajji ci waxtu aj waxtu woo dépare fii mu wóor le ne sama yóbbal si am xar du ca xej duma ko man boo dépare bu la nexe du woor ndax fil hajji la wax feeg yaa ngi dem góor rek loola mooy fil xajji wa sabaatin war na ko mu woor juróom-ñaari fan isa rajaatum dem dellu si ngeen seen dëkk ndaxit it woor loola fukki fan ci tukki ma dafa metti kon woor fa ñett rek pour mark marque li nga xam ne mooy jàmm yàlla gi boo ñibbee nga woor juróom-ñaari fan ya bu fekkee am nga ngant ba mënoo ko nag soo ñibbee nga woor fukk yépp ci sa kër tilka loolu nag tilka loolu maanaam ñett zayid zayid juróom-ñaar loolu da ko yaadu sane mu ne ñett nga dolli ci juróom-ñaar looloy tilka asharatun mu ne fukk la kaamilatun yu mat zalika jëf jooju nag muy had yu li man lam yekkun ku nekkut aaluhoo waa këram xaadiri l masjidi alxaraam di dëkk mak koo xam ne nag ambassadeur nga wala yow da ngaa nekk conseil wala yaa ngi dëkk ci biir makk wala réew ma ci nga dëkk kooku moom mënoo def lu mooy tamattu ndax yaa ngi fi dëkk di umra rek kon tamattu la te kon it had yu du la war loolu moo tax mu ne zalika li man lam yakun ahluhu xaadiri l masjidi alxaraam wattaqullaa ragal leen yàlla waalamu xam leen ne ana laa nag yàlla shadidul iqaabi aji tar ji mbugal la léegi nag alhaaju aj moom nekkul waxtu la neex rek nga dem mu tudd aj moom ashurun ay weer rek la maalumaatun yu ñu xam moo di wari diggi tabaski ak tabaski ci la ñuy dem di ko defi bésab aj gi nag yowmul xajil akbari moom bésab juróom-ñeent bi rek la ak bésab fukk bi moo tax buur ne fa man farada ku dogal na luy ku dogal na maanaam ku dogu na ci war a aji fiihin na ci weer yi alxaj ak aj nu muy def bu xarmalee fala rafasa bu déer muy joteeg jigéenati ndem xarmal na wala fusuqa déet muy génnatig topp ni sàcc ni xuloo wala ji daala déet dàggesante fil xaj yi di nekk ci ko armal aj wa maa tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci xeeti yiw yaalamuhu xam na ko laahu yàlla wa tazawadoo waaye na ngeen di yóbbalu nag ndax boo yóbbalewul dara ñaare ku nekk da nga ñëw ci taxaw di wun dimbal kon bala nga jóg fii waay waay na nga wut si yobbal ndax mbir mi waxuñ ne ku nekk na ko def ku man lañ wax kon soo mënul <coughs> da nga war a toog nga war a toog ba man ndax loolu la ko yàlla waxee moo tax mu yobbalu leen na ngeen yobbalu ci matériel lu ngeen di lekk ak lu ngeen di jëfandikoo waaye na ngeen yobbalu itam ci ragal yàlla ak jikku ji rafet moo mu ne fa inna xayra zaadi naka ngeen ji yobbal nag taqwa mooy ragal yàlla kon nag boo yóbbaloo matériel yi fattaqu ni ragal leen ma yaa ulil albaab yéen borom xel yu sell